sécurité ñoom ñëpp ndax ci ñoom kenn ci ñoom moo daanu ci daandi des conditions yoo xamante ni dramatique ngir rek taxawu askanam ngir rekk sàmm askanam kon Xaasim Jeeju ñoo ngi ñaan sunu borom mu xare ko aljana dinaa dellu siwaat ci loolu ci biir waxtaan bi di jaale way juru Pape Amadou Keita ci kër Mbay Fall ñuy jaale way gis nañu sortie bi nga xamante ni def na ko mu nekk sortie boo xam bu triste la képp ku ko xool sa yaram daw na xale boobu nga xamante ni ba mu juddoo ay waajuram investir ci moom am yaakaar ci moom comme ni woy jur yëpp amee yaakaar ci ñun waaye bés ñëw rek fa nga xamante ni fa lañ yaakaaree woon ci seen taxawaay kaaraange ña nga xamante ni ñoom la yaakaaroon ci ñoom taxawaay ba kenn du faatu ba képp ku ñu investir ci yow xale bu ñu investir ci yow ba nga juddoo ba màgg ñuy am yaakaar ci yow di la xool ngay dem ak ñëw ñuy am yaakaar ci yow nga dëgër ñuy am yaakaar ci yow nga xëy di jàngi di dem ak ñëw di am looy xam ñuy def ci yow xam-xam nga xëy rek ñu ne faatu nga noonu loolu pour man c'est triste leneen li ma gën a tristal mooy maa ngi déglu rek booba ba tey waaye gisuma sax ñi nga xamante ni ñoom ñoo sabab loolu kenn ci ñoom génn def ci taxaw seetlu ak naqarlu naqarlu wuñ ko benn yoon te ku mu dee woon ci sa kër tey di nga tal leneen lu dul génn naan da ngay wala nga da ngay génn naan da ngay di wane ci sa kanam sa xar kanam mbégte wala soit nga toog jàpp sa njàmbur noppi ku mu dee woon ci sa kër te du ñu nekk li ñu bëgg ci ñun du mat mukk lu dul jàpp ñu ne kenn ku dee ku mën a dee dafa mel ni ci sunu biir kër la dee tant que egguñu foofu set banalisation de la mort là fi mu ñu yóbbu musiba la te foofu duñ fa egg loolu moo sabab suñu taxawaayu tey bi réew ak lu mu mën a doon muy téye nguur comme muy bëgg nguur mënuñoo nangu nit ñi di dee ci dig-digal boobu di fàttali waxu Cheikh Mouhamadul Muntaxa jooju am solo lool mu ne mu ne àdduna ak li ci biiram yilif ko jarul benn nit di faatu ndax nit dafa rëy loolu moo tax muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne sax boo reyee benn nit dafa mel ni rey nga humanité yëpp ndax kenn xamul Pape Amadou Keita mi lu mu naroon a doon tey ci Sénégal kenn xamul Pape Amadou Keita lu mu naroon a jëriñ Sénégal kenn xamul weesu na sax ay waajuram waaye lu ne mënoon na ko doon tey moo ngi nii moo ngi nii euh, ñàkk na bakkanam dans des conditions kon ñoo ngi koy jaalee waajuram yi di ko jaalee waa kër Mbaye Fall yëpp di jàlle it xale boobu nga xamante ni wax nañ ne ñàkk na bakkanam fële ca Néma 2 ci Ziguinchor kooku tamit ñoo ngi koy naqarlu les serviteurs par ma ñoo ngi koy naqarlu ba fa naqarlu yem ndax dee dafa rëy ndax yaakaar la yaakaar bu dem la kon dee gi dafa rëy te ëpp na te mënatul wëy ñoo ngi leen koy wax les acteurs politiques de quelque bord que ce soit à plus de retenue à plus de maturité à plus de responsabilité mënatuñu nangu nit ñi di faatu am sax ñoo xamante ni dafa mel ni dañuy bëgg ci faatu gi wala buñ sañoon sax nit ñi gën a dee réew yi nga xamante ni yëpp encouragé nañ loolu réew yi nga xamante ni yëpp benn jamono banaliser nañ la mort mel ni dee ak dund ñoo yem réew yooyu yëpp ba ñu duggee ci digg boobu ci bunt boobu booba ba tey ci guute la ñu nekk kon doomu aadama dafa foot la dignité humaine elle est sacrée et cette sacralité de la dignité humaine waruñu ci négocier jamono benn jamono. di jaalee nag koo xamante ni tamit serviteur bu mag la woon nekk kilifa bu mag ci Sénégal doon représenter une institution muy soxna Léemu Touré Ndiaye bi nga xamante ni suma collègue député la ma koy jaale le groupe parlementaire démocratie et liberté. di ko jaale le secretaire général du parti démocratique sénégalais muy maître Abdoulaye Wade di ñaan sunu borom soxna Lému ture Ndiaye sunu borom xare ko aljana sunu borom euh, teg ci loxo njabootam te liggéey ba mu yéene woon ba jóg di ko dox ngir askanam ba taxawaayam indi ko assemblée nationale ñoo ngi ñaan yàlla mu euh, fay ko ko te fay ko njabootam te yàlla na bu combat bi mu doon combat yàlla na bu mu neen di jàlle it keneen ki nga xamante ni moom mooy soxna ajaa Diallo bi nga xamante ni moom moo ñàkk bakkanam fii ci Ngor loolu it yéen ñi nga xamante ni yéen ay ci histoire muy la presse gis ngeen ne keroog ci korité bi bi ñu ma ci laajee ci Masalikul naan artu woon naa ci waxoon naa ne ñi ci war a wax nañ ci wax ñi ci war a dox nañ ci dox ñi ci war a artu nañ ci artu balaa musiba di xew li ma wax ci Pape Amadou Keita mënoon naa wax loolu tamit ci soxna sii di Adja Diallo ñu ñaan yàlla mu yërëm ko te di massawu ñi nga xamante ni ñoom ñooy njabootam di wax ne li xew foofu moo xew ci barab yu bari ci biir senegal muy ñoo xamante ni dañuy xëy rek singili benn barab ne dañuy jël suuf soosu suufus dakaar li ma ci waxoon keroog dafa doy sëkk Dakar zéro virgule vingt cinq pour cent la ci superficie nationale zéro virgule vingt cinq pour cent boobu tey contenir près de quatre millions de person officiellement wala sax mu ëpp ko ñi nga xamante ni ñoo cosaanoo Dakar fekk baax Dakar il faut que ñu xam ne ñooñu ak seen njaboot suufus Dakar kenn gënu leen ci yey nit ñi mënuñu jamono bu ci nekk ñu jël seen suuf di ci def loo xamante ni ñii di ci tabax ay immeuble di ci wut xaalis ñii di ko jël di ci def leneen ñii di ci jël di ko def leneen ndaw yi nga xamante ni ñoo dëkk Ngor ndaw yi nga xamante ni ñoo dëkk Yoff ndaw yi nga xamante ni ñoo dëkk fépp ci biir dakaar itte woon nañu suuf soos ngir ñu bàyyi leen ko fi ngir ay réserve yoo xamante ni ëllëg ku ci dem ba aajowoo foo xamante ni mën nga faa dëkk nga am kër goo xamante ni mën nga koo tabax mën nga cee dëkk waaye mënuñoo continuer di dagg rek di jox nit ñi dans des conditions yoo xamante ni nébuleuses la am na ci ñoo xamante ni di ci wut xaalis wut xaalis boo xamante ni bu metti la loolu tamit damay waxal cette jeunesse là dakaroise ne leen euh, loolu kenn gënu leen cee yeel combat bu ñu ci war a mëne tamit ngir ñu bàyyi loolu nga xamante ni am na ci ñoo xamante ni ñoo koy def combat boobu ñun dinañ ko mëne jusqu'au jusqu'au bout combat boobu dinañ ko mëne jusqu'au bout donc loolu nekk loo xamante ni lu am solo la bu ñu nee Dakar tamit ñuy jaale bu baax porte-parole bu communauté Layène bi nga xamante ni Euh, wuy na suñu borom ñuy ñaan yàlla ak Cheikh Mouhamadul Bachir bi nga xamante ni tamit laay bi nga xamante ni moom moo njëkkoon a wuy ji suñu borom jamono yële ñuy ñaan ñoom ñëpp suñu borom xare leen àjjana di ko ñaan ci barkeb seen maam bi nga xamante ni moom lañ doon liggéeyal muy maam Limaamullaahi di jaale sunu kilifa it bi nga xamante ni bàyyeekoo na fi muy xalifa Ndiassane ñuy ñaan yàlla mu xare ko aljana ñu ñaan sunu borom mu do dolli ko leer muy ñaan sunu borom mu jël loxoom teg ko ci njabootam ba liggéey bi nga xamante ni ñoo ngi koy liggéeyal seen maam ñoom tamit mu defal leen ci lu kawe seen njort li nga xamante ni nag moom moo indi coow li yépp nga xam ñun jàpp nañ ne ñàkk cee wax jamono bi ak li nga xamante ni moom la ñu dëgmal di ko wut ndax umpale wu leen ne dañoo bëgg a wuutu ki nga xamante ni moom mooy Macky Sall ci palais de la République le 25 février 2024. mënoo nekk mënoo mënoo prétendre mënoo ne da ngaa bëgg a wuutu ki nga xamante ni moom mooy njiitu réew mi moom mi nga xamante ni du bokk ci élection yi nga xamante ni moom lañ jëm le 25 février 2024. mu nekk le président sortant képp koo xamante ni bëgg nga koo wuutu faaw nag faaw nga xam ne am na taxawaay boo xamante ni mënoo koo ñàkk taxaw. am na gis-gis boo xamante ni rawatina bu dee réew mi dafa nekk ci guddi goo xamante ni bët setagul ndax yenn saay ñi nga xamante ni ñoom ñoo seq langue politique gi immaturité day feeñ ci ñoom yenn saa yi tamit égoïsme day feeñ ci ñoom immaturité mooy ngay poser acte yoo xamante ni wóor na la ne fu ne mën na fa yóbbu réew mi égoïsme mooy sa bopp rek ñor la sa objectif rek ñor la loolu nag ñun jàpp nañ ne bëgguñu ko réew mi bëggut loolu li ma koy waxee jamono bu ci nekk la Sénégal est une promesse de paix de stabilité sociale te li ñuy ñaan yàlla mooy xel yi dellu siwaat ba ñu mën a dem ci élection yu dal ñi ci war a bokk yëpp bokk ci ki ci warta bokk te muy la président Macky Sall teel a yëkkati kàddoom teel yëkkati kàddoom wax ne du ci bokk moo tax ñuy affirmé di réaffirmer di yëkkati waat suñu kàddu di wax ne non encore à une troisième candidature président Macky Sall président Macky Sall moo leen gën a xam ne élection yi waru ci bokk njabootam gii di ko dugal ci musiba ñoo ko gën a xam ne moom waru ci bokk suñu ko bëggoon nit dinañ xam ne moom waru ci bokk coono bi mu ci nar a daj dina xam ne moom waru ci bokk forcé ba it la muy jur jaru ko loolu dañu bëgg mu leer ci sénégalais ñu xam ne réew mi ñoo ko bokk te on peut pas mënuñu foowee li nga xamante ni lu lu rëy la lu màgg la te mooy ëllëgu réew mi ci dig-digal bii rek nga xamante ni gis nañ ko jamono bii démb gisu leen benn communiqué boo xamante ni inspection d'académie bu Ziguinchor moo ko def mu ne fan yii xale yi duñ jàngi dafa mel ni choqué wul ci ñiy politique dafa mel ni choqué wul kenn waa réew moo xam dañoo toll ci di ko tabax ak ni xam-xam amee solo ak nit ni ni xam-xam li li Nelson Mandela doon wax naan mooy arme bi gën a redoutable pour changer le cours de l'histoire ñu ne xale yooyu daal ci ay jàppante politicien ñu ne xale yooyu duñu xëy jàngi xale yooyu fan yi dañuy toog ak yeneen xale ci biir réew mi loolu mënuñu ko nangu mënuñu koo admettre ñii war a waxtaan nañu toog waxtaan ñi war a gise waxtaan nañu gisee waxtaan ñi war a déglu kilifa yi te président Macky Sall moom moo ci jiitu Cheikh Mouhamadul Mountakha yónnee na ko bërki démb délégation noonu la kilifa diine réew mi yëpp di wax ak moom na ubbi ay noppam déglu ñooñu te jëfe ko ngir lu dul jàmm jàmm ko gën Cheikh Abdou Lahad dafa daan wax naan radiyallahu taala anhu lépp lu dul jàmm lépp loo bëgg a yëkkati te jàmm àndu ci soo ko yëkkatee di nga ko tegaat kon jàmm jooju la ñu bëgg ci Sénégal jàmm joo xamante ni nag day dafay tegu ci dëgg ñun justice képp ku ñu xam ci justice nañu xam képp ku ñu xam ci dénoncer l'instrumentalisation de la justice nga ñu xam mënuñoo nangu ba ñu instrumentaliser la justice dal ci kaw Karim Wade ñun dañoo yëkkati woon suñu kàddu ne loolu mënuñu ko nangu mënuñu ko mënuñu ko bëgg kon d'accorduñu ci ñu instrumentaliser la justice di dal daloon ci kaw Karim Wade mooy CREI yi bi ñu waxee ne dañuy dal ci kaw xalifa Sall ñun dañu ne loolu tam mënuñu ko nangu fu ñu koy defee duñu ko fekkee ñu xeex ci taxaw ci luñ ci war a def ñu def ko noonu ñu ko wañe woon démb ak tey noonu la ñu continuer di bañ aussi ñuy utiliser la justice pour di dal ci benn citoyen bu mu mën a doon nous sommes contre l'instrumentalisation de la justice loolu dama bëgg mu leer ni ñu bañee léegi troisième mandat ak fépp fu ñu koy xeexee noonu la ñu bañee instrumentalisation de la justice te fépp fu ñu koy xeexee ñun dinañ ñu gis ci seen wet loolu moo tax ma dellu si ci xam naa ne journaliste yu bëri moom laaj boobu moo ngi ci seen moo ngi bëgg moom ci seen xel muy keroog fa nga xamante ni fa lañ doon xeexee troisième mandat F24 jiite ko woon ñun ñu teewoon fa am na ci ñoo xamante ni dégg nañ leen ñu wax ne peuple bi ñoo ko doon yuuxu wala ndaw ñi ñoo ko doon yuuxu peuple Sénégal mësuñoo yuux su Sénégal jeunesse su Sénégal mësuñoo yuuxu au contraire ñun dañu ko wax ñu ne nous sommes la candidature de la jeunesse nous sommes la candidature aussi du peuple sénégalais ndax li tax mooy ñun nommé ñu ñu ne dañuy nekk candidat cinquante six mille trois cent trois personnes ñoo na nañu yow dañoo bëgg nga dem taxawal ñu assemblée nationale ba ñu ca jógee defaat liggéey boo xamante ni ci biir réew mi ak ci bitim réew ñooñu ñoo ne yow mii kat ñun bëgg nañu nga bokk ci ñi nga xamante ni dañuy xëccoo réew mi ci 25 février 2024 te keroog ba ñu yëkkatee sunu kàddu la 6 mai ba tey ma ciy gërëm bu baax waa Caajaay ak ñi nga xamante ni ñëpp fekkoon nañu Caajaay keroog ak ñi amoon yéene ñëw te ñëwuñu ak ñi nga xamante ni ña nga toogoon fa ñu toog di ñu ñaanal ne depuis que ñu wax ne dañoo bëgg a bokk ba tey ndekete sénégalais yi ñoo ñu ko gën a bëgg ndekete sénégalais yi ñoo ñu ko gën a yàkkamti waaye waaye li ma ciy wax li ma ciy wax mooy bu neexee suñu borom bu neexee suñu borom wut boobu ñu leen waxoon ne ci xam-xam lañ koy teg ak teggin ak yitte jamono bu ci nekk ci sago lañ koy wutee ba duñ ci def wala ñu wax ci loo xamante ni di ñu jéppi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 la nekk Casamance la nekk Sédhiou Pakao la nekk Kolda la grande région de la Casamance la fa nekk tey di ñu jàppale kenn xamul nu ñu toll. loolu moo tax may digal ñooñ seeni kilifa ne leen nañ leen artu it ñu bàyyi loolu ñuy wax bu ñu ko wax te bu ñu ko jëfee ndax waasoo amul place ci Sénégal. Sénégal gii li ñu yàlla defal kenn xamul lu mu toll ci richesse. kenn xamul cousinage à plaisanterie bi rek soo ko jëlee taw feex gënu koo rëy ci Sénégal kon Sénégal xamul problème mu xeexu diine Sénégal xamul problème mu waaso kon loolu damay ñaan ñu arrêté ko na dakk ndax nous avons une commune volonté de vivre ensemble et ce vivre ensemble là bu ko kenn foowe te loolu it loolu it damay wax ne président Macky Sall daf ci am responsabilité ndax Macky Sall la gis ci réew mi mu xëy bàyyi njabootam di wax naan Fouta titre foncier Macky Sall waxu leen dara titre foncier amul Sénégal amul benn homme politique Sénégal bu am titre foncier Ziguinchor suñuy yaaya fa ne ak suñuy pap ak suñuy moroom yoo xamante ni xam nañ ne li ñuy def nii ñoom lañ koy defal suma maam suma maam bi jur suma jur bu jigéen Ziguinchor Béykounda la takk jabar Béykounda la takk jabar ñi ñi xam Casamance xam nañ li may wax ñi xam Ziguinchor xam nañ li may wax suma jur bu jigéen daanaka def na une partie de sa vie de son enfance à Sédhiou ndax suma maam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon nañ former les premiers cadre yu jóge ci gox boobu nekkoon fa inspecteur de l'éducation et de la jeunesse kon li ma ci jubloo leeral mooy nañu xam ne Sénégal benn bopp la te kenn mënu koo xarñaar te waxoon naa leen te maa ngi ciy delluwaat di ko wax ne leen xuppaate ak xëppaate ñii xëppaate amuñu benn chance ci ñun ñii xuppaate it amuñu benn chance ci ñun Sénégal boo ñu yëkkati te dara duñu téye kon loolu dama koy leeral keroog ci marché F24 bi di remercier toutes les forces vives de la nation yi fa daje woon keroog di gërëm bu baax di sant aussi les leaders des de de de cette de cette grande mobilisation yi nga xamante ni keroog kenn koo ci jàkkaar loolu xam nga ne xar kanamam mbégte mu rëy moo ci nekk ngir dalal boo xamante ni dalal nañ ñu ko foofu keroog. xam ne ñun fépp fu ñuy xeexee troisième mandat ña nga fa taxaw président Macky Sall bi ñu koy wax ne ko amoo droit am troisième candidature boobu xëy na ñu bari tey lañ koy wax bari na ci sax ñoo xamante ni dañ ko doon defaan tey jii ñoom ñoo nekk di ko rafetlu kon ñun. bëgguñu troisième mandat bëgguñu it troisième candidature bii lool kenn ci réew mi donc président Macky Sall ñoo ngi lay ñaan encore une fois euh, nga renoncer publiquement à cette troisième candidature parce que loolu dina participer à une paix sociale beneen bi nga xamante ni it bëgg naa ñu wax ci trop mooy la justice aujourd'hui au Sénégal am na défi bu mag la justice sénégalaise am na défi bu mag boo xamante ni am na ko mooy lan mooy dossier yi nga xamante ni dafa nekk ci taabalam ñu jëm ci ay élections présidentielles dossier yi am ñu mu laal ñoo xamante ni dañoo jàpp na ñoom dañoo war a bokk ci présidentielle bi ñoo ngi koy wax ne ko quel soit lu mu métti quel que soit pression yu ñu mën a am justice na wane tey ne justice bu indépendante la justice na wane tey ne mën naa tëdd njaaxaanaay ndax réew it bu justice tëddewut njaaxaanaay musiba moom mooy am kon justice bi dafa war a tëddee jaaxaanaay rawatina ci dossiers yi nga xamante ni dafa concerné ñoo xamante ni dañ ne dañoo jàpp ne dañoo war a bokk ci présidentielle bi kon justice encore une fois vous avez un grand défi ñoo ngi leen di bàyyi xel bàyyi xel boo xamante ni xëy na histoire du Sénégal daan nañ leen bàyyi xel waaye bii def ci rawati kon la justice encore une fois indépendance lañ koy laaj la justice encore une fois équité lañ koy laaj jàpp nañ ne tamit farata la beneen bi mooy gis nañ ne ci coow yi am ni ci senegal bari na ay arrestation lu ma tuddee ay arrestation arbitraire mooy jàpp yoo xamante ni jàpp yu yomb la xañ nit ki liberté du lu ndaw lu rëy la kon ñi nga xamante ni dañ leen a xañ seen liberte tey ci ay mbir yoo xamante ni jàpp nañu ne aajo woowul ñu tëj leen kaso ñooñu ñoo ngi ñaan ñu bàyyi leen ñu dellu ci seen i kër ñooñu ñoo ngi ñaan ñoo ngi interpeller l'État di interpeller la justice ñu bàyyi ñooñu ñu dellu ci seen i kër ndax jàpp nañu ne am na ci loo xamante ni jarta tëj kaso am na ci loo xamante ni jarta tëj kaso donc képp koo xamante ni tey jii ñuy lim lim boo xamante ni jégg na dawee près de cinq cent arrestation arbitraires ci ay ndaw ay talent emprisonné ay ay ay ay ay énergie emprisonnée ay espoir emprisonné ay rêve brisé comme ni ñu brisé rêve u Pape Amadou Keita comme ni ñu brisé rêve u Xaasum Jeeju ak seen wayjur loolu jàpp nañ ne wut nguur jaru ko jàpp nañ ne téye nguur jaru ko dama bëgg mu leer wut nguur jaru ko téye nguur jaru ko loolu waxoon naa ko ca 17 juin 2022 loolu lay laay réaffirmer waat tey kenn du ma jële ci may wax ne jël nguur ak wut nguur jarul kenn di dee waxoon naa ko démb tey laa ko gën a wax bëgguñu kenn dee bu ñu sañoon kenn du dee bu ñu sañoon jàmm muy am ci réew mi bu ñu sañoon kenn du fi nekk di reyante di détruire les biens publics di di lakk sunu bus yi nga xamante réew mi nga xam problème mu transport publique kese la ñu lakk ci une cinquantaine loolu jàpp nañ ne c'est pas possible c'est pas possible ça ne peut pas continuer ñi ko sabab ak ñi koy def ñëpp laa wax ñi ko sabab dama ne ñi ko sabab ak ñi koy def ñëpp leneen li nga xamante ni bëgg naa ko wax mooy on va vers l'exploitation du gaz et du pétrole waaye yéen foog ngeen ne réew yi développé yëpp jëfandikoo seen gaz ak seen pétrole mérite cette classe politique là elle n'est pas à la hauteur des enjeux dañu soxla classe politique boo xamante dafa yëkkatiku dañu soxla classe politique boo xamante ni dafay comprendre li xew dañuy soxla classe politique boo xamante ni dafay comprendre enjeu bi am ci réew mi xam ne pétrole ak gaz xam ne pétrole ak gaz lenn la ci ressources yu ñu am waaye dafa am loo xamante ni moo gën a crucial pétrole ak gaz mooy l'avenir de cette jeunesse jeunesse boo xamante ni nanguwuma ku leen di jëfandikoo ngir wute ko nguur nanguwu ma it ku leen di jëfandikoo ngir téye ko nguur dama bëgg mu leer ñaar yëpp laa wax duma ko baal kenn et nu sommes nous dañuy défendre cette jeunesse parce que nous sommes l'espoir de cette jeunesse dañuy défendre cette jeunesse parce que nous sommes la candidature de cette jeunesse ba ñu duggee politique ba tey 22 avril 2022 dañu ne li ñu bëgg mooy dundalaat yaakaaru ndaw ñi dalal xelu mag ñi dañu ne it mag ñooñu dalal xelu mag ñooñu ci ressources yi lay lay taxaw Sénégal dafa nar a gaz ak pétrole gaz ak pétrole boo ko nar exploité exploiter classe politique buy bang bangi mënu koo yor dafa laaj une responsabilité parce que am na ci ñoo xamante ni seen intérêt mooy tey mbiri jaxasoo ñuy ñëw di root te kenn du xam lu ñuy root ñuy ñëw di tibb te kenn du xam lu ñuy tibb waaw Sénégal askanu Sénégal yéen lay waxal d'ici et d'ailleurs de la diaspora nañu moytu par parloo bi te déglu ni nit ñi di wax xam na ñu nekkuñu ci parparloo ci dëgg lañu ne dëgg boobu la ñuy woo la politique nekkuma it bokkuma it ci politiciens yi nga xamante ni dañuy wax loo xamante ni gëmuñu ko ngir yéeyaay ëllëg ñu jël nee nañ électorat nit loolu it man du man lu ñu gëm lu ñuy wax lu ñu gëm la alxaqu min rabbikum dëgg yàllaa ko moom dëgg yàllaa ko moom dëgg boobu nag lu mu ñu jox ñu jël waaye lu mu ñu xañit ñu jël tappale ci politique moo téye réew mi fii tuufkaani ci politique moo téye réew mi fii wax wax yu suufee ak yu ñàkk fayda moom moo téye réew mi fii Sénégal soxlaatul loolu keroog dama dajeek sunu benn nataangoo bu dëkk gàmm bi mu ne ma pap na ngeen gën a góorgóorlu ci seen taxawaay ndax ñun ci yéen la ñuy xool na ngeen gën a góorgóorlu ndax ci yéen la ci yéen la ñuy xool doomu Sénégal mas sa nekk koo xamante ni ci moom rek lañu daan xool ci taxawaayam ndax nous sommes un grand peuple loolu nañu fexe kon nañu soor homme politique yi laay wax nañu soor li ñuy wax nañu sóor li ñuy jëf nañu sóor it suñu taxawaay ndax ndaw ñi ci ñun la ñuy xool ndax jigéen ñi ci ñun la ñuy xool ndax suñu yaay yi ñoom la xaar ñun la ñuy xaar pour ñu dalal seen xel ñun ñoom ak suñu papa yi waaye kilifa yi ak mag ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réew mi muy kilifa diine yi surtout ci wax lañu dëkk ñëpp lañuy ñuy waxal rawatina ñi am responsabilité. bari na ci ñoo xamante ni sax tey nee nañ Pape Djibril Fall na bàyyi di wax nañu respecté kilifa diine yi tey jii laa koy gën a waxal. Sénégal dafa am lu mu baaxoo te loolu du fi jóge am na ci ñoo xamante ni lu ñu mën a am Touba leen ko gënal. am na ci ñoo xam lu ñu mën a am Tiwaawan a leen ko gënal am na ci ñoo xam lu ñu mën a am Daaka Medina Gunaas leen ko gënal am na ci loo xamante ni lu ñu mën a am Popenguine moo leen ko gënal am na ci ñoo xam lu ñu mën a am Cambérène Yoff maam Limaamullaahi moo leen ko gënal am na ci ñoo xam lu ñu mën a am Cenaba ak Njaasaan moo leen ko gënal am na ci ñoo xamante ni lu ñu mën a am seen ngëm googu lu leen koy sàmmal ak seen ngor ak seen diine moo leen ko gënal kon ñooñu ñun suñu action politique bu dëgëru loolu du ko fragiliser kon suñu taxawaay dañuy delloowaat njukkal mag ñooñu nga xamante ni tey ñoom ñoo téye réew mi delloowaat leen njukkal gërëm leen sant leen ci seen taxawaay bi nga xamante ni ñoo ngi koy taxaw di leen wax ne ñoo ngi wax nañu continuer wax ji nañu continuer taxaw nañu continuer taxawu njaboot gi nañu continuer taxawu peuple sénégalais loolu kenn mënuñu ko teree wax. beneen bi beneen bi nga xamante ni bëgg naa ko leeral mooy jur yi sonn nañ trop ci njaboot gi. tey retraité yi ñoo yor kër yi loolu nekk loo xamante ni lu tiis la ñi nga xamante ni dañoo toll ci noppalu tey ñoo continuer di takk seen ndigg laxasaayu bërki démb damaa dem tuuba di waxtaan ak ay soxna ñu may wax nañ leen di liggéey loowee fa ñuy liggéey xolli saaku gerte ba mu jeex ñu fay la 600 francs te loxo nga koy xollee loolu jàpp nañ ne c'est une classe politique defayante moom moo jur loolu tey boo demee fii ci Soumbédioune demal nga xool jigéen ñi ni ñu nekk boo demee Kayar la même chose fii nga xamante ni moom mooy zone de pêche dañuy waasa waasa waas ba sonn lañuy yóbbu seen kër mënul sax fayal seen doom jàng boo jëlee ndaw ñi tey xool leen ci mbedd bi dañ ci gis koo xamante ni ndaamaraas lay yor di ko jaay day dox ci naaj bi ba karawam gu ñuul gi day mujj xonq bokk ñi nga xamante ni sàmm seen ngor ak seen diine tey moo tax ñu jël désert bi ñi nga xam sànn seen gor ak seen diine moo tax ñu jël géej gi waaw ñun lool moo ñu yitteel loolu moo tax ñu dugg ci politique ngir saafara ko ngir dindi loolu taxawu ko nag ci na fas yéene koo taxawu fas yéene koo taxawu ci industrialiser Sénégal fexe ba Sénégal am ay usine fas yéene koo taxawu ci li nga xamante ni moom mooy xeex corruption ci réew mi guerre guerre ñiy gere ak ñi ñuy ger ger tant que jeexul ci réew mi réew mi mënta développé Assane 2 daf doon wax ne Assane 2 daf doon wax ne grande corruption sax tiital na ma mais petite corruption laa gën a ragal parce que mooy détruire économie kon corruption xeex ko xeex la mal gouvernance gis ngeen rapport yi li mu génne rapport cour des comptes rapport IGE ñemeetu ñu génne sax léegi rapport parce que rapport boo saa boo génnee rapport loxo dina dem ci gémmiñ te tibb du ko fa yóbbu loolu ça ne peut loolu moo tax ñu dugg politique pour xeex la mal gouvernance pour xeex li nga xamante ni moom mooy la corruption sur toutes ses formes corruption yëpp la ñu bëgg a xeex ba nga xamante ni dina fi jógee kon encore une fois ñoo ngi woo cette classe politique ñoo ngi woo les forces vives de la nation ñoo ngi woo kilifa diine yi ñoo ngi woo kilifa aada yi ci ñu xam ne Sénégal mu ngi ci diggante boo xamante ni wa kenn waru koo bàyyi kenn ñëpp la ñu soxla seen taxawaay ñëpp lañ soxla seen dimbal xam ne Sénégal dëkku jàmm la xam ne Sénégal dëkku yiw la xawante sutura bi bari na mënatul woy waxante lu ñaaw li bari na mënatul woy defante lu ñaaw li bari na mënatul woy le Sénégal ni ma koy waxee stabilité rek moo ñu ji c'est notre première ressource humaine ressource première ressource première bi ñu am bi ci gën a am solo mooy jàmm ji nga xamante ni yàlla defal nañu ko beneen bi mooy waxtaan il faut que waxoon naa ko maa koy waxaat ci koor gi laa ko waxoon maa ngi koy waxaat ne ñi war waxtaan nañu toog waxtaan ñi war a diisoo nañu toog diisoo ngir jàmm mujj tey jii lu dee bari bari bari ci waxtaan rek la ñuy mujj kon léegi loo mën a looy eggale men tàmbalee ko ba nga xamante ni mbir yi dinañ ko mën a soppi xam nuñ ciy waxtaane ba nga xamante ni dinañ mën a dem ci jàmm jooju donc loolu sama me semble extrêmement important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 713 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñee nee góor ngóoraa tax